nous pour patio pour Cerdo, loolu la donc Ousmane Sonko qui est nommé premier ministre moy proposé hmm. euh, au président les membres euh, les membres du gouvernement. Hmm. donc bu la tanou nga génn kaas dañu xamé li nga wax du donc nañ bi ku kaas da ngay. non ku kaas ku ku yi a gis nga ñom ñoon ñi ci ëpp deug la. Hmm. ils ont mené ben combat ci projet PASTEF moy nek nañ ci plateau di wax mais nous bi ëpp xale yi ñoo ko doon def si tali bi. di jàmmoonteeg force de l'ordre yi defe naa ne sax déggoo benn leader bu dee xale yi ñoo hmm. dee. kon nag tey ba Ousmane Sonko formé un gouvernement ñu doon xaar yenn tur yi dugguñ si li ñuy mën a jàpp mooy si wàllu xëy na compétence peut-être mën nañ ko bañ a ñàkk mais ñee la Ousmane Sonko jàpp na ñoom la war a liggéeyal pour li mu bëgg a def. aujourd'hui il y a beaucoup de postes à distribuer il y a les directions il y a les directions générales il y a les postes de PCA les, postes de président de conseil de surveillance mm. il y a beaucoup de choses hein il y a les donc aujourd'hui état quand tu es compétent et que tu as la confiance du premier tu as la confiance du président de la République pour nous, dougal la fenn foo faut je pense que lolo le yomb mais maintenant, puisque nous avons il fait du paacoo dañoo ñëw pour le réew je pense que kenn du fi des cas c'est normal que ku ait def séance donte ñoom ñëpp nag ku si sañoon président dina la jox hmm. ça aussi c'est c'est tout à fait normal quand tu es un acteur politique quand tu te bats pour une cause boo même ba de haut pouvoir di nga rêver ñu jox la dara pour nga aussi ses compétences. parce que nit dina bëgg benn poste nit ñi jàpp ne daf ko bëgg bëgg rek pour nguuru non des fois di nga bëgg poste parce que da ngay bëgg hmm. xalaat yi nga am pour poste boobu dox nga nga nga nga dans le gouvernement du président Ousmane Sonko peut-être à part euh, le ministre le ministre de la femme. Hmm. Maïmouna Dieye bon pas si compétent compétent parce que dama suis rek euh, acteur de développement du genre truc mais vraiment tout le reste da ngay que nous avons fait, jox donc je pense que nous avons quand même quoi qu'on puisse dire un gouvernement à xam euh, si wàllu gis-gis moom nous avons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut maintenant ça ne suffit pas de faire des résultats tu peux être un bon quelqu'un qui est bien en infrastructure quelqu'un qui est bien en justice maîtrise quoi. mais si on la un ministère. Hmm. mën nga réussir parce que hmm. poste ministériel management bi est ëpp solo parce que tu da ngay diriger ay nit kenn ku ne am pas donc yow liñ la li premier ministre jox comme ay mission liñ la jox ci ce qu'on appelle décret d'attribution décret de répartition des services liñ la jox nga fexe mu dox loolu nag ay nit da koy doxal nit ni nga leen ménager tax un bon ministre mën nga nekk quelqu'un bu calé ci wàllu santé hmm. ñu jox le ministère de la santé nga échoué parce que ay professeurs dafa nekk et puis santé du faire faj Il y a les infrastructures sanitaires y a le personnel donc tu dois gérer tout ça pour dire que euh, nañu leen ñaanal ñu réussir mais bon le profil mom am maintenant gérer un ministère lenen la question nga le profil pour pouvoir gérer un ministère. alors c'est clair euh, par rapport à quoi non alors dañuy ñëw ki nga que Cheikh euh, ministre des finances si ki nga ne Ousmane Sonko alors euh, mi prédire exactement des lendemains incertains. Euh, japonais euh, plus de 14 000 milliards euh, de dettes yi nga xam ne itam fekk na ko si gafaga li nga Sénégal et tant d'autres et tant d'autres est-ce que patience puis donc nga armé ou wala peut-être le Sénégalais en réalité est-ce qu'il est patient pour exactement. je pense que Cheikh Diba il a fait une communication politique parce que lui aussi il était le directeur de la programmation budgétaire. Mm, mm il faisait partie des grands artisans du plan Sénégal émergent. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment important au niveau du ministère des Finances. Donc, on sait que le euh, président Macky Sall a le budget, ni les finances publiques, mais au cœur. Maintenant, en tant que ministre de la, euh, des Finances, peut-être il peut avoir une bonne vision, mais Moussou en tout cas, en tant que fonctionnaire, mu wax ne xalaat na ne Sénégal li ñu euh, dette bi ñu yor day tax fi ñu jëm dafay metti pour man communication bi ñuy xaar ci Cheikh Diba mooy mu wax Sénégalais yi kat donte bor bi bëri na donte jafe-jafe yi bëri na on a les capacités financières de régler ça. mais c'est évident vu que ñoom ñu ne dañuy tabaxaat dañuy. Euh, waaw dama ne moo communication la xaar si moom. c'est-à-dire dire aux Sénégalais que nous nous allons vers des lendemains incertains difficiles pour moi ça ne rassure pas. Nous xam nañ ko laaj ni mi pour fekk fi yomb quand mm-hmm. mi dox mi continuer parce que mi dañu ne dafa yi def rupture changer indi équipe donc le discours le plus rassurant mooy ñun kat situation bi fekk nañ ne gëm nañ ne maintenant aujourd'hui la communication du gouvernement de porte mooy parce que dafa bëri ñoo xam Bassirou Diomaye bu toogee ak Ousmane Sonko rek duñ démé ñetti wër 4 mois gi fi day changer dund gi day wàññeeku essence bi day wàññeeku affaire day non lolu mënu démé non gestion état il y a beaucoup de paramètres yooyu jël en compte da ngay ñëw xool les finances publiques xol bor yi Sénégal amé xolne amna ay aide budgétaire yo war jox amna amna ay financement extérieur yo war jox yoy yep ay réajustement lay laaj bo bëgge wàññi dund gi benen bi moy bo bëgge wàññi dund gi da nga am ay taxi yu bëri yo bàyyi boko ko dina am ay programme yo bàyyi xeyna yo xamne ay priorité la won pour le Sénégal donc nekul lu yomb gestion état fokk nit ñi xamne nekul lu yomb. mais la mooy priorité jëmono ci fàllu. wàññi dund xam nga Sénégal bo bëgge degg dégg-dëgg ñom xam nañ ko sax moy wàññi dund gi dund Sénégal mon cher c'est-à-dire Sénégal moy dëkk bu sous développé bo xamne sëñ bi dund fi ma ngi mel ne ngay dund Europe tey amul kenn koo xam ne boo yoree cinq mille wala six mille sept mille dix mille sa kër danañ danañ si ndékki añ si reer si sëñ bi loolu du boo bëggee nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi dund dund gu yamamaay sëñ bi loolu mënu nekk dëkk yi dafa am priorité yi dëkk ñett yi dafa mënul ñàkk wala ñeent yi dëkk ku xiif da war a lekk da war a am foo mën a lekk peut-être pas de manière générale waaye bokk lu ëpp ëpp si askan wi dañoo war a am accès si dund gi. li ngay saler salaire mën la dundal dekk ku fièvre da nga wara faju dekk da nga wara am sécurité yii dafa mënul ñak dekk ku bëgg jang da nga wara jang ñent yi moy xolal mom la Sénégalais yi gëna soxla seen cas yi ñuy dégg fi ne xolal Sénégal bu amul infrastructure te mu na bo xifé da nga lekk bo maré da nga nan bo tëddee da nga nelaw kenn du sacc kenn dugg kër di la sacc hmm. bo février da nga faju bu sa jabar février faju bu say dom février faju sëñ bi bo bëggé jang say dom jang sëñ bi loolu dëkk bi day neex mais dëkk bo xamné tu as un salaire de cinq cent mille balaa weer wee dee nga am ay bor loolu ban ban genre dëkk la donc ñom loolu moy seen priorité donc Cheikh Diba aujourd'hui ce qu'on attend de lui moy mu wax sénégalais kat na leen li ñuma jox muy finance dinañ fexé ba assainir les finances publiques ba dans quelques années bori ñu amoon dina wàññeeku parce que bon ñu ngi war a jëm si pétrole euh, exploitation pétrole gazière mm-hmm. xayna dina am ay avantages ñu amal mais dund gi am nañ la les possibilités wàññi ko mais bu ñu waxee fi ñu jëm dafa métti mooy Sénégal yi toog leen mun mënaguñoo wàññi guñu def dara te loolu je pense que Sénégal yi xaaruñ loolu de Sénégal dañu xal ay mesures yu gaaw donte nak du waru nekk lu ñuy parax paraxee moo tax j'ai apprécié quand le président Diomaye à travers son adresse à la nation a dit que dinañ jëm ci wàññi dund gi mais bu ñu waxtaanee ak les acteurs ba paré xam nga ce serait une très grande erreur nga xëy suba rek askan wi fal nañ la noonu dund gi wàññeeku rek nga jël un décret na rek wàññi nga dund gi bàyyi nañ taxi non je pense que nii ñuy def pour man c'est une bonne démarche. mooy il mm. faut discuter d'abord avec les acteurs si wàllu dund gi si wàllu transport bi euh, si wàllu paj mi. Mm. ñu waxtaan ak acteurs yi si nekk lenn lu ne ñu xool li ñu mën a bàyyi te du yàq secteur bi je pense loolu mooy pire mais boo xëyee suba wàññi dund gi suñ bi commerçant yi.

Euh, il faut nous lance que mandataire international loolu lay xaar nous nga le gouvernement qui est en place loolu nag suscité na li nga euh, polémique dans l'année justement politique ban jàng na si def pour moi d'abord il faut qu'on essaie de dépassionner le débat. Hmm. Boubacar Sey, c'est quelqu'un que je connais qui se qui se bat bien pour euh, la défense de des immigrés mais pour man waxam ji qui nit en train de se rek. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà donc waxu voilà, Macky Sall wala li nit ñi wax rek nga koy wax xam nga tam nit bo nekké ci Sénégal dafa am lu ñuy wax naka président de la république président de la république hmm. trahison haute trahison bobu du président moy xey suba rek ne président dañ koy topé haute trahison dafa am luñu wax mise en accusation boo xam dañ koy yob assemblée nationale ni voté ko haute cour de justice moo koy àtte beneen bi moy ci Sénégal pour nga wax nit nañ ko lancer mandat d'arrêt day fekk ñu soxla ko ñewul benen moy ku ñuy lancer mandat d'arrêt day am luñu topé président de la république est-ce que aujourd'hui amna benn lo gis yow ci réew mi lo xam dañ ko fi topé suñu juridiction yi topé ko ko amul. nee na am na ay crime économique am na ay crime de xawma ma sang du genre mm. genre yu ni mel mm. mais loolu daf il faut que ñu bàyyi justice parce que bu ñu bëggee justice bu indépendante du ñu du ñu du ñu jël pression teg leen ko pour ñu leen def leen nangam autorités yi mën nañu am ay éléments ñu jox ko justice justice def ay enquête bu fekkee justice def na enquête ba pare ba ne njiitu réew mi Macky Sall ka jàpp nañ ne lii am na te loxoom génn si bu boobaa nag ñu xool naka la ñu koy méngaleeg ak dayom parce que dafa une immunité présidentielle bu dañuy yobbu assemblée nationale def ay mise en accusation de ko mun juger donc parler d'extradition parler parler mandat d'arrêt international pour man lolu quand même insensé on peut pas aujourd'hui lancer un mm. mandat d'arrêt à un président qui xamné amul accusation de tek ci hein, aujourd'hui on dit que le président de la république euh, dafa commettre des crimes économiques bon d'accord il dafa commettre des crimes économiques lan moo koy nañu indi les rapports yu ne président de la république wala li la enquête yi am président de la république mo def ki dafa am ay crime de sang nañu wone ne li doon am mois de mars ñi nga xam ne ñoo fi dee wala nangam nangam loxom taqe na si mais ñu nekk rek. topp waxu mbedd rek di wax mais accusation yoy yag na exactement. accusation yoy yag dafa tax ma euh, commanditaires yi ñan la étant d'autre étant d'autre accusation yag dafa tax la Ousmane Sonko topp ñuko fi pour euh, pour euh, viol ak ak menace de mort par naa ñaata at bi tribunal lañ lañ wax corruption à la jeunesse. Hmm alors accuser nit. mais Fall dafa que factuel même si. il dégage sa responsabilité. non factuel même si que est aussi mais. si nguuram dafa am faut factuel Fall Fall